la ca nekk bëggul nga xool ko te digalu ko nee na yaa ngi xool sawara la ngay xool day mel ni yaa ngi xool sawara te ku xam xool sawara xam ne lu rëy la lu lu lu lu lu am lor la euh, kon noonu ñu ko waxee loolu mën naa tekki leetar mën naa tekki ab message bu ñu def ci ab téléphone mën naa tekki lu baree bare loo xam ne nit ki bëggul ku ko gisal loolu lépp loo xam ne nit ki bëggul ku ko gisal rek dañ ko war a wattandiku di ko xool te du du du du xam bool ci ne kon yëm la tere mooy nga damm gis ci lépp loo xam ne waroo koo xool dafa alam ci yow nga bañ a xool yi fi jaamur yoo xam ne borom bëggul ko ko xool loolu lépp euh, euh, bokk na ci yi ñuy tere mu ne nag yi ñu ciy digle nag léegi lan nga war a def ci bët bi gannaaw boo ci bàyyee yi ñu la tere mooy xat xuli xat laka li kay tahtadiya fi zulmatin biha fala tastadiya nee na bët bii kat yàlla daf la ko bindal ngir nga di ci euh, gindiku ci ak lëndëm bu lëndëmee di ci gindiku ku xam xéewal gu mel noonu kañ ko xañ nga xam ne xàmmeewul guddi ak bëccëg yow mi ñu ko may nga mën a xàmmee guddi ak bëcëg loolu xéewal gu rëy la goo xam ne ku ko am war ko sàmm ndax ku yàlla sunu borom tabaraka wa taala nee na man rek maa leen mën a defal guddi man rek maa leen mën a defal bëccëg qul araaytum in jaala allahu aleykum layla sarmadan man ilahun gayrullah yatikum bi diyahin afala tasmaun ne su ma faboon guddi guddi képp am guddi rek am bëccëg amut kan moo leen di andil ak leer ku dul man kenn du leen indil ak leer ku dul man te mënoon naa ko waaye su ma leen andil loon bëccëg kenn amul guddi nan ngeen di amee guddi ba man cee noppalu ba man cee féexlu noppal ci seen yaram kenn mënu ko kuddul dul sunu borom tabaraka wa taala kon guddi ak bëccëg xàmmee gi nga koy xàmmee ba mën a yëngu ci bii ba mën a noppalu ci bii xàmmee googu bët moo koy def ka amul ay gët mënut a xàmmee guddi mënut a xàmmee bëccëg beneen ba ci des mooy dimbandikoo ci lii say soxla yi nga xam ne soxlay farata la soxlay aajo la yoo xam ne yu ñu war a dimbalikoo la nga dimbalikoo ci say bët ci loola wa fi lxawaaiji stain biha fala tanzur biha nasrata aasin xafala waaw bët mooy faj ay aajo yi nga xam ne bët rek moo ko mën a faje moo ko mën a faj xàmmee nit ñi kii mooy diw kii mooy diw xàmmee melo yi ni daa weex daa ñuul daa xonq mën a yëkkati sa bopp dem demal sa bopp yóbbu sa bopp fu la neex te kenn du la yóbbu jàng ay téere ak njariñ yu bari yoo xam ne bët am na ko ñu mën ko caa jariñoo tamit tamit tamit lu am njariñ lool ca yooyu lañ ko war a jëfandikoo yoo xam ne yuy nit ki njariñ la te du ko jural ay ay lor waaye bu ci xool lenn loo xam ne luy nuru ak moy la wala loo xam ne luy nuru ak càggante la ba ca mujj nag mooy lang ci ca war a jëfandikoo mooy nag li nga xam ne moo gën a rëy ci li tax yàlla bind bët wala yàlla def ab gis defal ko nit mooy mu xool ci kiimaani yàlla yi nekk ci univers bi waaw kiimaan yàlla yi nekk ci mbindeefam yi lim bind moom yàlla nga kiimaan yi ci nekk nga di ko ci xool di ci yéemu di ci yéemu ndax kiimaan yàlla kat yàlla ak amam ñi ngi koy xamee ci ñaari mbir rek mooy eh, kiimaanam gi nga xam ne dañ koy jàng ak kiimaanam gi nga xam ne dañ koy gis kiimaanam yàlla gi ñuy jàng mooy alquranul karim alquranul karim moo ñuy moo ñu xamal ne yàlla lu am la ci biir alquran dañ ci jàng ay aaya xam ne day xam ne ne yàlla am na shahida allahu annahu laa ilaha illa wal malaikatu qaaiman bil qist wa huwa alladi fi lsamaahi ilah wa fi l ardi ilah wa huwa allahu fi lsamawati wa fi ard aaya yooyu yëpp ak yu dul moom day tegtale ne yàlla suñu borom tabaraka taala tudd na ci alquran ne moom lu ko am la ku ku ku nekk la kon alquran jooju ci boppam mën na sa ca tegtaloo amuk yàlla waaye am na yeneen kiimaan yoo xam ne tam mooy yi ñuy gis nag yi nga xam ne moom yee dañ koy jàng waaye bii dañ koy gis mooy mbindee fi yàlla yii mu bind ci ci àdduna bi asamaan si suuf si garab yi doj yi lépp yëpp yëpp yëpp loo gis rek kiimaanug yàlla ma nga ca wa fi kulli cheyin lahu aayatun tadullu ala annahu waaxidu loo romb rek mën nga caa xalaat ba xamee ci amug yàlla ak kattanug yàlla sunu borom tabaraka wa taala soññu ci alxuraan ci aaya yu bari ñuy jëfandikoo sunub gis ngir mën a xalaat amug yàlla gi ngir mën a xalaat kattanug yàlla gi afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma xalaqa allahu min shay qul unzuru ma saa fi wa maa tuxni l ayaatu wa nudur an qawmin laa yalamuun afalaa yanzuruuna ila l ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat qul siiru fi l ard fanzuru kayfa kaana aqibatu lmukazibin yooyu yépp sunu borom tabaraka wa taala daf ñuy wax ñuy jëfandikoo sunu sunu gis di ko xool ngir di ci mën a xalaat yàlla nguurug yàlla gi asamaan si ak suuf si ak li ci li nekk ci seen diggante yépp ak xool gëléem ni ko yàlla bindee ni mu kiimaanee nga xool doj yi nu ko yàlla bindee ni mu kiimaanee nu mu ko sampe ci kaw suuf nga xool asamaan si ni ko yàlla yëkkatee te amul ay kanam amul dara nga xool suuf si ni ko yàlla tàllalee ba nit ñi man cee faj seen ajo nee na loolu lépp ay kiimaan la yoo xam ne ku ko xool dana la tegtal ne amuk yàlla gi waaye dana la tegtal kattanu yàlla gi yooyu ma yooyu mbindeef yépp yu yéemu la yoo xam ne li muy tegtal mooy xaaliqun wa mujid allahu mujidu bi xayri mujidi fa innahu mujidu kulli mujadi yàlla moom ku am la te moo amal lu am lu am rek la ko amal loolu buñ ko buñ ko seetloo danañ gis ne arabi yi ba nga xam ne ab sàmm la rek boo xam ne jàngul xamul dara sax waaye bañ ko laajee ne ko noo def ba xam yàlla mu ne ni ma def ba xam yàlla damaa gis gëléem fu mu waaf ba ba ba jógee fa dana fa bàyyi lu wane ne fii gëléem waafoon na fi nit fu dëkkoon wala mu jaaroon fa dana fa bàyyi loo xam ne dañ xam ne fii dëkkoon na fi ma xam ne nag asamaan sii am ay ay am ay biddiw ak yoon waaye suuf si am ay yoon ak ni ko yàlla organisé ak ni mu ko doxalee ak lépp ni mu jaaree ci aw yoon loolu daal li muy tegtale mooy am na ku ko amal mooy al aliyul xabir loolu mënut a am loolu rek ci sut rek faw rek am na lu ko amal te li ko amal ni ginnaaw yii bu amee am na lu ko amal gëléem la muy bàyyi mooy wane ne am na waaw leneen la ci des la muy la fa muy jaar mooy wane ne am na asamaan si ak suuf si tam ak seen kiimaan yi ci nekk dana tegtale ne am na ku ko amal kon loolu daal mooy gët yi ñu war koo sàmm bu baax te wattu ko te lépp loo xam ne yàlla digle na ñu def ko ci ñu def ko ci lépp lu yoo xam ne yàlla tere na ñu bàyyi ko ci ñu bàyyi ko ci yàlla na yàlla dimbale te sàmmal na suñuy bët sàmmal na suñuy làmmiñ sàmmal su suñuy nopp ba nga xam ne duñ ci def lenn loo xam ne duñ ci war a def la yàlla dimbale ñu tam bañ def ci li nga xam ne moom lañ ci war a def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 ashhadu anna muhammadan rasulullah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 صددتم عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه احتقارا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم فاستعدوا للموت فقد أضلكم waqad qaala sallallahu alayhi wa sallam aksiru min dikri haadimi llazzaati xataa yanqatia rukoonukum ilayha alaa wa innakum fi yawmin fi yawmi amalin laa xisaaba fiihi alaa wa innakum tubsikuuna fi yawmi xisaabin laa amala fiihi وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه الحمد لله غافر الذنب ساتر العيب قابل التوبة سديد العقاب فاتح أبواب الإجابة لمن دعا إليه توكلت وإليه فيا سعد من سبقت له الحسنى ولطاعة الله سعى نشهد أنه الله الذي فتح بخاتم الأنبياء من الخير كل باب صلى الله وسلم عليه وعلى ما له من الآل والأصحاب أما بعد فيا أيها الناس من أراد أن يكرع في للصفا يتق الله وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى فقد أمرنا الله بذلك لننال أجرا عظيما فاعمروا بذلك هذا السهر الجليل وبالنوافل الطعام وبما أمكن من الإحسان بقدر الاستطاعة قد كل فالتوبة إلى الله مفتاح أبواب الرحمات والإنابة إلى الله سبحانه هي أساس العبادات والقربات لم تزل منهلا كريما يتواردها الأصفياء وسرابا طهورا سرابيرا عارفين بالله والأتقياء عن والإليه طائبين له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 في يدي وفي داري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله حي على السلاد أي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله warahmatullahi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

تتلى ما أنحانهم تسقيهم مما ليس لهم طعام لا يسمن ولا يكن وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نزلت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلى إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم